Île-de-France ñoo ko organisé yéenekaay gi nee na patronat bu Sénégal MEDES moo leen fa représenté maanaam président Mbagnick Diop mi nga xam ne sax tamit moo nekk premier vice président du groupement du patronat francophone yéenekaay gi nee na la nga xam ne waxtaane nañ ko fa bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus andil na ko France ak Sénégal waxtaane nañ fa tamit lu jëm ci wàllum numérique bi nga xam ne jàpp nañ ne soutien la ngir nag lu jëm bi yéenekaay gi nee na en tout ay personnalité yoo xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoom nag def nañu ay proposition nee nañu suñu bañee maanaam violence am ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmale coalition yëpp nañu nag daal di signé ab charte boo xam ne jëm na ci wàllum fexe ba violence doo am yéen kaay gi di réew mi ko di ne tudd nañu si ay député yéen kaay gi nee na procédure levée seen ko daal di door a nga xam ne moom la ñu dëgmale yéen kaay gi nee na Moustapha Niass nee na député yi nag maanaam ay citoyen lañu bu ñu defee nag ay njombe loole yoon dafay dal seen kaw waaye nag nag bu kenn xaar maanaam ma jël position ci mbir mi maanaam may parparloo yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na assemblée nationale yi nga xam ne mooy Boubacar Biaye ak Mamadou Sall yéene kaay gi di Le Quotidien nee na bu assemblée nationale altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu daal di daje ngir nag càmbar lu jëm ci Boubacar Biaye ak Mamadou Sall yéene kaay gi di Le Quotidien nee na Moustapha Niass mi jiite assemblée nationale joxe na rendez-vous altine moom la ñu dëgmal yéene kaay gi bi nga xam ne moo bàyyi ko Sénégal Sénégal dem fa yéen kaay gi ne na en tout cas daal jamono ji ñu bari ñoo ngi samp ab laaj ci ñaata xaalis la ñu dépensé ci Dubai Expo ci délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko Sénégal ndax nag ña nga xam ne ñoo fa dem bëri nañ genn xeetu bëri koo xam ne fu ko waay nag daan na koy passé te loole nag xaalis bu dul jeex la yéen kaay gi di réew ko di jen xëy ci benn waay boo xam ne ab silmaxa la maanaam koo xam ne du gis ni ki démb àtte nañu ko ca tribunalum Dakar waa ji daal ci boppam ab silmaxa la waaye nag dafa nax benn commerçant nax yoo xam ne nax yu yomba yomb la ndax mii nga xam ne ab silmaxa la mu ngi tudd Pape Mamadou Camara dafa daa di woote ci standard bu nag CCB wax leen na leen man may directeur di budget ka jot nag moom silmaxa bi dafa daa di commandé téléphone yu baree bare yoo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na si juróom-ñaar ci ay millions waa ji nag jël téléphone yi andil ko ko fi nga xam ne mooy direction du budget daal ko koy joxal benn livreur livreur ba ne mes ne mentañe si la ko porte plainte waaye nag moom silmaxa boobee di Pape nañ koy lu toll si ñetti weeri kaso yoo xam ne daf koy tëdd yéen a kaay gi di enquête xëy ci Panama Papers nga xam ne doon nañu ko fi tuddee ka njombe yi nga xam ne maanaam am na ci journal bi nee na Bibo ak Karim Khalil Bourgi ak Mamadou Pouy tudd nañu leen sa yéen kaay gi loole nag grande nébuleuse la docteur Abdoulaye Gningue nekk impôt domaine nee nag bu dee da ngaa dem bitim réew daa dafay créer li nga xam ne mooy ab société ngir nag daw li nga xam ne mooy impôt loole lu illégal la yéen kaay di leen fukkee ci njàng meeg njàngale mi ak nag waa rectifié woon nañ ko yéen a kaay gi di source nee na waajuru xale yi nag jamono ji ñenn si ñoom dañoo sonn ba maara détaali ci lu jëm ci wàllum frais d'inscription yi ak fourniture yi nga xam ne moom la ñuy jënd yéen a kaay gi de Le Quotidien nee liggéey liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen o jamono ji nag ñoom mer nañu ba maara détaali ndax nee nañu kër gi di seen o ni ñu ko yoree dara baaxu si tâtonnement làmbatu dëggantaan moo fa am ñoom liggéeykat yi nee nañu malaise ci boppam moo am ci seen o nee nañu tamit li nga xam ne mooy qualité service bi baaxul te facture yi dafa cher ba maara détaali daan nañuy ñaawlu bu baax a baax changement facteurs yi nga xam ne am na ci mbir ma yéene kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu bu ñu waxantee dëgg mooy jafe-jafe ak problème yi nga xam ne maanaam moo am ci biir seen o fu ko waay nag daan koy passé moo tax agent yi nga xam ne maanaam ñoo fa nekk di fa liggéey jamono ji dañoo daal di fippo yéene kaay gii di la soleil nee na fanweeri attaque ñeent ginnaaw bi ñu assassiné ki nga xam ne mooy Thomas Sankara waaye nag ba léegi ni dal maa ngi ci xel yi ak taxawaay bi mu amoon ba léegi ñoo ngi koy waxtaane mémoire immortelle noonu la ko journal bi xëy fësale ci xëtam mu njëkk moom la soleil l'observateur fekk fa Cheikh Mahi Cissé muy andi ay leeral ci lan moo tax mu organiser gi ci diwaanu Kaolack yéen kaay gi di esat xëy di ñu tàggee Joseph Koto nee na Sénégal ñàkk na un grand serviteur Sadio Mané ma ngi jooy entraîneur bi nga xam ne moo ko njëkk a entraîné yéen kaay gi di la sax xëy di ñu xibaar naan ñu Joseph Koto ñàkk na matcham bu mujj malaise moo ko faat ginnaaw nag bi mu déposé ki nga xam ne mooy président bu Casa Sport ci otom ba pare ci la daanu malaise yéen kaay gi nee na ab monument ci boppam